Sonko moom nga njëkk a cité ils sont tous petits parce que ils devaient pas montrer que ñoom am nañ ay problèmes personnels yu leen di mën a tax agir à ce niveau kilifa li muy njëkk a mat mooy du yëngu fii dara lu lu ñëpp bokk mais ku ci dem ba waxante yenn kàdd yu ñaaw yi ci ay problème personnels daf maa attaqué dama ko tontu Sénégal tollu ci jafe-jafe ci inondation économie un pour cent ak euh, pandémie yaakaar naa ne. ku bëgg a jiite réew te bàyyi xel nation ku nekk doo wax ne daf ma attaqué benn attaque daf ma valable muy attaqué contre les inondations attaque contre la coronavirus loolu rek moo amoon solo. ci affaire Sonko euh, euh, euh, leen ñoom ñëpp parce que Mansour Faye. a pris le contre-pied du président moom mi ne woon maa def CREI yi ngir régime bi fi jógee maa def OFNAC pour régime bi fi nekk régime bi fi nekk ministre Mansour Faye ci la kon bu ne ñii bu ñu ma woowee duma ma dem mi ngi affaiblir kilifaam su ma doon moom du ma ko waxee noonu bi bi mu ko waxee noonu ba noppi bëgg a tourné waat débat bi ci Sonko mii recevoir naa ko ça n'a rien à voir avec mu dem guy ji OFNAC ba mu ne recevoir naa ko Sonko Sonko daf ko waroon ko baax na mais demal wuyu ju OFNAC c'est ça la question mais pas recevoir nga aussi réception bi am na ba noppi Sonko bëgg koo miim aussi tamit su ëllëgee su kii amee prévision su ko wanee Sonko sera très petit loolu mën na yàq sax ci ni ko nit ñi gisee te fekk te yooyu du dara amul benn influence ay recevoir na mag man maa ngi nii nekk opposant Macky Sall daf may recevoir maa ngi nekk opposant mais damay gisee Idriss Seck maa ngi nekk opposant mais damay gisee El Hadj Mady Kenya maa ngi nekk opposant mais Sonko dañuy mosul ñoo toog waxtaan mais damay apprécier ay yëfam lu bari am ñu ma jaaxal aussi dama koy wax donc loolu dara dinaa daje moom ëllëg wala ginnaaw ëllëg donc daje bi ay sénégalais lañu kenn ku ne ab dëkk nga dëkk ci Sénégal de la politique bi am na beneen vie bu ñu gën gën a dëgër bu ñu boole bu bokkul ak politique bi kon pour ñu toog gisee waxtaan Sénégal li fi complexe boobu dinu ko ci bopp yi mooy yow da bokk fii wala da nga bokk faa. je voudrais dire une chose parce que ces gens là ne sont pas aussi intelligents bala maa dañu naan kii nga ne système bi baaxul système bi mooy kan système bi mooy lan parce que yow anti système nga da nga jub yow ci système bi nga bokk juboo je voudrais dire solennellement que le bon sens la connaissance la vérité n'a pas de couleur scientifique wala couleur politique wala couleur philosophique amul ni ni socialiste encore mooy libéral se trouve partout ku ne mën na ko am amul kii ne ko ci système bi ku nekku ci anti-système bi du waxi dara avant avançons il faut ñu dépasser loolu mais kuy wax loolu rek parce que yaa ngi bëgg benn groupe am ay partisans am ay combattants nga leen di agiter ak ci ay idées yoo xam ne c'est des fausses idées qui ne qui ne tiennent pas jëmul fenn nañ jàpp ne sénégalais bu ne fa nga nekk bu ànd ak Macky Sall mooy tax nga bon. du bañ Macky Sall la mooy tax nga baax du ànd ak Sall la mooy tax nga baax du bañ Macky Sall la mooy tax nga bon ku ne am nga lu baax ci yow ñu jëfandikoo ko nañuy daje tey wax tey waxu njub tey bañ di dil loolu moo baax mais daje loolu dara nekku ci lan moo gën a noble Sonko bëgg a gis Macky Sall te Macky nekk président de la République Sonko nekk un citoyen ça c'est très noble mais bu mu ko weddi su amee waaye nag bu amul nit kee bu mu ko tuumaal ngir yàq ab dërëm te kee dee muy ju Souleymane Teliko woo naa ko deux fois jëlul noonu la tudd enfin Souleymane Teliko je pense euh, je fois wuyuma je l'appelais pour euh, apporter mes parce que ce que Teliko on devait traduire conseil discipline bi ko doon déglu ñooñu dañ leen war a en conseil discipline parce que ce que Teliko la cour de la justice de la CEDEAO moo wax moo ne jugement bi baaxul te magistrat yooyu cette cour fait partie de la structure judiciaire de tout un pays membre cour de la justice de la ci Sénégal la bokk suñ constitution bii la bokk juge ko wax ñoo gën a mag cour suprême bii ñoo gën a mag cour des yëpp parce que quand il y a un conflit wax ni c'est un article constitutionnel quand il y a un entre les lois nationales et les arrêtés internationaux c'est les arrêtés qui l'emportent quand les, ces cours communautaires ont décidé un jugement, ce jugement a plus de valeur que les jugements nationaux. Quand Soutiliko n'est qu'un juge sénégalais qui a dit ce que les juges les plus grands, les juges communautaires ont dit, mais il ne fait que son droit. ku ko traduire conseil discipline yow dañ la war a traduire yow conseil discipline laaj la kii lu mu def ci loolu laa ko doon wooyee wuyu ma nag xam naa xaw ma wala xaw ma sama numéro je sais pas partout dans ce pays. Mm, non ba tey non non ba tey sénégalais dañuy jaxase juge bi ñu jëlee Podor sañ nañ ko war na faa jógee parce que bul fàtte ne ñoom aussi magistrat yi amuñu benn mandat légitime kenn falu leen dañ leen di élu kenn élu leen dañ leen di nommé dañ leen di nommé de. par un conseil supérieur dirigé par le président public qui est légitime waa conseil bi la jox pouvoir pour nga mën a àtte ab sëriñ nee nañ tëj sëñ ba ñëpp ne wa jaadu na parce que yow am nga pouvoir tëj sëñ ba waaye conseil bi la jox mandat boobu suñu la déplace yóbbu la feneen fu ko neex pourquoi que waa waa UMS nee dama ne waa coow boobu même su dee noonu. waa SMS lu ci seen yoon ki ko def sañ na ko est-ce que man UMS e boobu ngay wax est-ce que buñ tëjee kenn dañ ne yow lu tax nga ko yow li nga def c'est pas normal yow da nga koo een da nga nopp jabaram yow da ngeen boo ko waxee dañ lay jàpp ne da nga contesté da nga contesté décision bi na ci nekk yooyu mun na ci nekk donc kon ñoom def daal ñoom lu ñu def c'est incontestable bu ñu defee c'est valable mais ñoom ki leen yilif ba jox leen pouvoir leen déplacé non ils se lourd lourdement trompés c'est pas ça la vie et puis chaque fois dégg naa bu ñuy wax ñoom seen intérêt rek tepp nañ masara bi mais suñu wax li teel ko wax lañu waroon di wax mooy jugement bi baaxul kon ñoo xam ne ñoom ñu ngi xeex ci noblesse mais seen intérêt yi fayuñu leen fii seen lii manqué na fii ñu kii jaaykat yi dañuy jaay ci biti seen bureau yi jàqu na seen joxuñu leen ay kii bu kii famille atte du am oto kii du def nii mais kooku c'est pas noble pouvoir boobu du pouvoir légitime tiré à partir d'un vote populaire non c'est un pouvoir légué par un conseil dirigé par le chef de l'État qui est légitimement élu conseil boobu am na droit jëlee leen fu ko neex doole bi jox ki nekk Podor pour mu tëj ab sëriñ doole jooju moo jox président conseil de supérieur de mu déplacé ko yóbbu ko fu ko neex quel est le problème. gis nañ euh, inondation yooyu pendant que ni nga ko waxee noonu gis nañ euh, mu am ci. bu benn wax bi ci am président dig fi département waa Kër Massar yow nga profité wu ci loolu proposer beneen affaire muy eh, ñu def Touba région lu waral loolu est-ce que est-ce que Touba am na potentialité yëpp pour yore pour mun a nekk région. laaj bu am solo la ëpp parce que dama ko wax am ñoo xam ne seen xam-xam dafa soriwul ñu naan Touba mënul nekk raison parce que Touba ëpp na ko dëgg la Touba ëpp na ko waaye Touba soxla na ko. am nañu naan Touba bu nekkee raison kan mooy fal gouverneur mais Touba commune la ñu ngi sous l'autorité d'un sous-préfet kan moo fal sous-préfet kan moo fal préfet ku fal gouverneur ku kaay fal gouverneur bi bi toppaat mooy Touba am na toute potentialité requise pour nekk capitale waxuma laa pour nekk raison Touba dafa bari ay valeurs sa valeur démographique d'abord Touba à part Dakar moo topp ci bariwaayu nit li ma lay wax nii. c'est des chiffres officiels ginnaaw Dakar Touba mu fi moo ci topp ci économie ci àdduna Touba rek moo fi dajale sept million personnes ci benn dëkk ci adduna laa wax de waxuma la Makka ak Rome ak feneen ak feneen sept millions personnes Touba la am ci àdduna trois cent cinquante milliards lan moo koy dugal ci at mu màggal gu mag gu dul Touba waaw vu tout ces valeurs là Touba mënul nekk raison Diourbel bi ko bi nekk raison bi dafa am yi ma lim nii ñi fi nekk raison Saint-Louis ak Ziguinchor ak yéen dañoo am valeur yi kon pourquoi pas Touba mën koo nekk surtout parce que amagul ay commune ci biir amagul ay ay département mais ni Wade jële woon ay mesures fekk benn département mu def ko une raison ñu daggaat ci biir ay département mais mais kay bien sûr kay mën nañ def Touba raison ça na amul amul benn euh, difficulté ah donc président moo koy def rek di ko di ko ko administrativement ak compétence yi muy àndal ça c'est très simple pour un pour un état oui. faisa faisabilité boobu noonu bu ñu defee Touba euh, région jàppoon ni def ko mu nekk quelque chose de statut benn statut particulier parce que maa ngi ci doon waxtaan ak benn expert de centralisation mu ne Touba dafa war a am statut. particulier pour ñu mën a booster tourisme euh, religieux bi bi nga xamante am na ay dëkk yoo xam basé nañ ci pour pour mën a jëm ci kanam. wii mais son essai spécial jotewul ak sa raisonna sa régionalisation dara pour mu nekk raison nee la commune la xamoon nañ ne bu mu nekk commune parce que am na statut spécial mais teewul mu nekk commune ça n'a rien à lu mën nekk commune lu nekk mën nekk raison raison la mais euh, raison lan la commune bu mag rek donc commune la mu ngi jox wàllu commune am ba mat sëkk bokkul ak statut spécial bi mu am nga xam ne c'est beaucoup plus religieux que administratif parce que administration centrale bee fi dox lépp moo ko fi dox Touba ak feneen a yam li fi nekk nekk fépp police ak gendarmerie ak tous les autres euh, démembrements de l'État quel est le problème mun nañ boster statut spécial bi normalement comme souhaité par le kalifa ak ñi ci des ñëpp mais aussi par ailleurs mën nañ ko def raison ça n'a rien à te du tee gën a avancer le plan infrastructure sur le plan euh, sanitaire amuñu hôpital hôpital trois la ñaa ngi bëgg a dee ku fi am doom génn àdduna mais lii métti na ñii wax naan noonu nañ def lii je pense que seen xam-xam des na ñaar yëpp mën nañ demandoo ensemble te loolu mooy njariñu Touba na ko wëy na ko waaw nañ ko defal Touba ba noppi soog a laaj lu mu ëpp voilà مولاي القوم